procès bi ñi nit ñi di wax par ci par là Ousmane Sonko aj Sarr am na sax ñuy annoncé ne kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko léegi ñu oo ko aussi à la barre par aussi est-ce que loolu nekkul aussi benn euh, mun na nekk benn handicap pour euh, ki nga xam ne mooy euh, le leader de Pastef nga xam ne mun fu mu toll nii mun nañu wax ne démarré na nemmeeku tuuram ak gis neen incident yi nga xam ne amoon na foofu lee ci Joal ba mu jëloon rek comme à l'accoutumée jël lépp teg ko suñu ndodd kii di président de la République Macky Sall. Euh, Ndiap. Mhm. je vais te surprendre un peu. oui. pour la première fois. oui. je vais pas parler de cette histoire Ousmane Sonko Adji Sarr ici. j'en ai fini. Ah, duma ci tontu pourquoi ça ne m'intéresse pas. lu tax. wallaay intéressé wu ma te du ma ci wax. ah lu tax doo ci wax du ma ci addu. bu ñu demee nag bañ ne ah procès am na wala leneen peut-être on parle je pourrais en parler mais nii nii nii. parce que da nga gëm ne procès du amaat. parce que boo ne doo ci wax. est-ce bi tey Sénégal dafa toll ci diggante yu compliqué ñu bëri alal judul jeex ay nit di ko sàkk di ko jël di dem di jaar suñu kaw non nu noo wax la ñàkk fayda lii ma jox la benn exemple képp ko fi toog naan waaw mbirab jigéen ak góor ak la ca des toj nga dëkk bi yow ci sa bopp yow mi kaa wax ay bu muy ay yow eh bu salle massage yi ci dëkk bi mu doon wax kon kilifa yu bëri dootuñu taxaw suñu kanam. ah li ma laa tontu si loolu. dama la ne kilifa yu bëri laa la wax ni jamono bii bu salle massage yi doon wax wala xale yu jigéen yooyu mel ni Adji Sarr di wax <laughs> kon xam ne duñ fi taxaw ça ne m'intéresse pas sincèrement je je veux pas en parler. bilaay yow daal procès yow sama xarit nga bilaay du ma intéressé wu ma. Adji Sarr Ousmane Sonko dootuma ko débat bëgguma bëgguma xanaa doo dégg aw bëgguma. intéressé wu ma. mais Paasan fan nga wax ci nag mënoo toog fii aussi te doo ci wax c'est l'actualité aussi Paasan. ma ne euh, defe naa lenn daal moo mun a ne bu dee émission bi dafa jeex nga wax. émission bi kay jeexagul ñu ngi soog a commencé Paasan <laughs> Paasan wax ci aussi si leneen loo xam ne mun nañu wax ne mu ngi commencé aussi. di tympaniser bu baax les sénégalais bu njëkk bi dañoo gis ne c' est l' opposition qui en parlait moo nekk par rapport ak li nga xam ne mooy euh, troisième mandat bu président de la république mais dañoo gis ne depuis euh, après les élections législatives ñi nga xam ne ñoo sës rek kii di président de la république Macky Sall ñoo waxatuñ sax mbirum troisième mandat wala sax faisabilité bi ñoom maintenant ils parlent de deuxième quinquennat na njàpp. Euh, mm-hmm. Euh, irrévérence mm-hmm. euh, manque de respect ak léeg-léeg sax ñàkk xam ci nga doon mm-hmm. dafay waral lenn mm-hmm. est-ce que xam nga dama am kersa di xool yenn nit yi ñuy toog di wax troisième mandat ak deuxième quinquennat ma leen di xool ci télé bi ñoo xam ne dañ daan toog di xatataayu naan Ablaye Wade bu fi troisième mandat ñu def nii ak nii ak nii man dama ne wala boog ñii de dañoo foog ne sénégalais duñu ay nit wala dañoo yeb sénégalais yi wala faalawul nu daal keeruñu xale yi ñoom ñu ngi fi 18 ans la ñu am 18 ans ils sont super frais xulil wuy ma malgré la crise malgré ndox mu bon bi malgré lu leen dal lu leen dalul xulil mhm. wuy ma wuy ma ma wax la mhm. danoo daw ay kilomètres mag bu fi toog di fontoo ko nit ñi ko def la ko su dul noonu xale yi lijjanti ko ah oui dafa am loo xam ne yebaate la. mais peut-être Pa Assane aussi ñoom bu ñuy wax wàllu wàllu mu deuxième quinquennat peut-être aussi dafa am fu ñu ko par euh, constitutionnellement parlant aussi Pa Assane loolu tamit mun na leen koo nangu. te am na ay vidéo yoo xam ne comme ni ñuy vaaree ñi nga xam ne ñoo féetoo ci pouvoir bi noonu la ñuy vaaree ku mel ni comme euh, le maire de Dakar euh, kii di euh, Barthélémy Diaz di artu ci li nga xam ne mooy troisième mandat bu président de la République Macky Sall di xam ne ne président de la République Macky Sall bu naree samp ndig ndëndam par rapport ak li nga xam ne mooy 2024 am na ci droit bi paas aussi. njàpp njàpp. Mhm. njàpp bite. dama lay wax benn affaire bu simple te compliqué wu ndeysaan réew maa ngi nii gis nga de pour wax la sénégalais fi ñu toll xulil c'est-à-dire bi moo dem de façon instantanée mm-hmm. li waa ji naan noo dangay toog ci plateau bi euh, information di dal sa kaw mm. tele si poche dafa xew da ngay wax léegi ñu dëggal la léegi wala ñu weddi la léegi mm. professeur Zouank mm. bu université de droit ak Babacar Gueye effectivement à un moment donné ils avaient parlé de relativement de la constitution de 2016 bi ñu doon voté ci référendum bi qu'il y aurait eu un piège par rapport à cette histoire de troisième mandat moment bi ñuy wax loolu président Macky dafa def déclaration Ismaïla Madior Fall wax Seydou Gueye wax Mbaye Ndiaye wax mhm. mais à la toutes les pontes de l'APR wax ak seen ay alliés mhm. ne yéen xanaa du ngeen dégg troisième mandat mënu fee nekk ci nii wala ci ne regardez les textes mhm. professeur de droit bi ñuy wax Ismaïla Madior Fall ministre de la justice garde des sceaux ci jamono boobu mhm. wax mu leer nañ daal di ne waa 2S je le répète trois fois ah. nul ne peut daal di leeral waa léegi ban Sénégal la ñu war a mën a toog ñun ñun ñun xulil awee ah nañu taxawee woon 2011 taxaw buntu assemblée nationale xeer ay naaw la waaj naan bu ko jaree dakaa jar dafa am benn mois boo xam ni peuple kenn ko saaga ay ndey. Mhm. te ñii di wax troisième mandat gis naa Ibrahima Sène sanu baay bi a bien même allier la. il était hyper allié mais au moins raison dafa baax. Mhm. nee na président Macky Sall bul xaru bul nangu ñi lay topp nga suicidé wu. te loolu moo la dëgg. faut-il sauver le président finalement. il est esselé il est esselé on dit. il est hyper esselé xaw ma ndax ndax moom na ni il est esselé ou pas mais il est esselé xam nga lan mooy esselement. Hmm. esselement mooy nga mel ni kër réer nit ñi toog di la xool. ba pare naan la yaa nga ca ay ba ca nekkee. wala sax euh, mu dafa mel ni comme que jàpp otage aussi. Euh, kii njàpp le président Sall est entre le marteau et l'enclume. le marto et l'enclume ça veut dire ñi nekk ak moom jege ko di jàpp ni ñoom seen adduna mooy Macky Sall wàcc na seen adduna jeex na ñàkk gëm yàlla ak ñi nga xam ne ñooy nasaraan jàpp ni Macky bu demee ñun dootuñu am keneen ku ñu toogal. gérer ñu suñu affaire nasaraan yi ñun dañoo am euh, suñu indépendance wala amuñ ko finalement à chaque fois. mais euh, ñu ñun amuñu indépendance suñu. mais njàpp ñun amuñu indépendance. su ma la déggee ngay wax Pa Assane j'ai envie de vous demander euh, chaque jour da nga naan amuñu indépendance il y a la main invisible de la France derrière est-ce que duñu dem aussi xool euh, les accords qui ont été signés par Senghor ak ki nga xam ne moo di moo nekk De Gaulle par rapport à cette indépendance. non je parlerai pas de Senghor ak De Gaulle je parlerai de euh, la réunion de de de à Brazzaville en 1944. effectivement Charles de Gaulle qui a tout orchestré. tubaab yi français dañoo war di jàpp di julli ñoom seen seen julli bopp. di ñaanal Charles de Gaulle ndax bu doon moom France disparaître. Mhm. ba mu jaaxle. daf leen ne dem leen jëlee africain yi. Mhm. malheureusement autant sunu grands-parents yi malheureusement naïveté ñoom tamit daal di jouer le jeu. Mhm. dem xeexal leen ba pare ñu ñëw fii faat leen ña ci des ñu faat leen Strasbourg af sa des. Pauline dama lay benn affaire bu simple te bu leen di faat leen di faatee dañ leen nax seen gàllaaj yeeg seen téere yi dañ leen nax ba nu ñu dóor leen ni bal est-ce que est-ce que est-ce que njàpp ni gis na li muy wax nii c'est c'est à la limite da ngay foog ni légende la quoi mais mais une réalité y a l'histoire xulil y a l'histoire et l'histoire y a l'histoire qu'on nous a apprise à l'école que des mensonges uh-huh. bi ñuy jàngal Émile Zola uh-huh. ak Victor Hugo uh-huh. yi ci ëpp ay nar la ndax jamono boobu Serigne Sam sanu maam xulil ak ñoom kocc ak sunu maam yu baax yooyu. ñu ngi ñoo doon wax ay valeur ak vertu. mais mhm. tubaab bëggut ñu jàng loolu mu gëm loolu leneen damay wax tubaab dinaa ko wax dix milliards d'ans ba bis ah, biñ ma naan. yàlla ñu yàlla may fekkeek tal xolil ñu ne ñu ah libéré nañu Sénégal. parce que Ndiab aujourd'hui quand je dis entre le marteau et l'enclume mooy que les accords de défense. Mm. quand vous signez des accords de défense quand vous confirmez ces accords mais mais mais livresquement barbare. yooyu ñu si ñëwoon ca Congo pour lan ne léegi xaalis bu alal ju njëkk a ci sa dëkk ñun France ñoo ko ak gàddu lu njëkk moom la Assimi Goïta dindi jël ko sànni fële taxaw nag Sénégal nag bis bu ñu ñëwoon tey ñu ne Sénégal allié na ak Russie ci ngay xam liberté ni mu neexee da nga yaakaar ne Russie mooy la solution. je ne parle pas de solution je dis liberté. Ah, ah. liberté xam nga liberté lan la. liberté ba amul doole. liberté bu sénégalais yi am Russie amuñ ko de Pa Assane il faut aller en Russie pour comprendre cela Pa Assane. Euh, Ndiap. ah ma ne. a ngi maa dégg. maa ngi lay dégg bu baax sax. liberté laa la wax xam nga lan mooy liberté am capacité teg sa loxo ci sa moomeel soo amee kenn ku la si mën a jàppale. moo xam russe moo xam portugais moo xam allemand moo xam këm mënti doon jàpp je donne je donne euh, euh, euh, quelque chose par exemple une mm-hmm. info mm. est-ce xam nga ni actuellement ay sénégalais les jeunes sénégalais yi nekk en Allemagne ñu ngi ci crise dañ leen di jël di leen rapatrier in petto di leen ñibbi sulawaat fii ci dëkk bi te loolu amutoon bu dëkk Allemagne lan moo tax mu am léegi eh doo laaj lu tax mu am léegi mm. bu njëkk sénégalais yi daan nañ toog Allemagne kenn du leen sonal lu tax léegi loolu am parce que nos autorités ont signé de nouveaux accords yoo xam ne ñu du ñu xam nan la tëddee léegi sénégalais yi nga xam ne ambassade ba moo daan vérifier yenn sénégalais fi nekk léegi dañ leen di jéggi hmm. xam lu leen di jéggee am ñeneen ñoo xam ne kii français la kii lee la xolit hmm. ñëw ci dëkk yi di dugg ci dëkku Allemagne yi hmm. di repérer sénégalais yi di leen jàpp xolit yóbbu dajaleen ci ay camp de concentration bu ñu demee ba mat avion ñu gàddu yóbbu loolu nguur bu baax dina ko signé nguur bu baax dina def loolu parce que lan vous protégez des intérêts yoo xam ni kenn xamul la mu doon ngeen jël seen population yi mais njàpp njàpp njàpp xanaa xamoon yow mii di wax yow mii man ak yow ak ñun ak su ñëpp surtout les médias sénégalais on doit changer les paradigmes de l'information ñu dem ci sens bi ñu ne leen eh la doon am si jamono RFI di ñu fen France 24 duñu fen a keneen ak keneen léegi loolu c'est fini malheureusement relais boobu dafa am parce que la presse dañ ko dañ ko cantonné fenn foo xam ne toujours ci même chose boobu lay fonctionner muy jur tey xulil su ma la waxee lu jëm ci sens contraire bi nga ne ma non mais est-ce que nekkuma di délirer voilà le mal aujourd'hui tous ces candidats alhamdulilah mais xam nan la français yi def. Mm. européens yi ma wax la ko tey da ngay nekk Macky Sall yow ñu jël sa opposant ak say ñu xool ci 3 4 yoo xam ne dañuy nekk seen allié ñoom. ñooy bokk cercle. loolu du lu ñoo wax ci kaw dañ la kaa wax nag nun parce que réew mi soxla nekk ci jàmm te tant que ñu ngay fonctionner noonu du nekk si jàmm xam lan lay jur. mooy jur nga am président mu wàcc nga jël beneen président daal di ne kii de moo yées ka ca des parce que la kee nangutoon astu kii de ñëw nangu la ca des waaye ba muy wut du ko feeñal voilà le mal et aujourd'hui o là je parlerai de Ousmane Sonko tu me diras Khoulil il a l'air de celui qu'on ne veut pas parce que apparemment il fait pas partie du cercle ah loolu mooy problème mu Sénégal ak Afrique mooy dañuy créer sax seen ay opposants da ngay gis président bi nekk fi ñu tubaab yi créer ko ay opposants xool ci kenn koo xam dañ ko naan bon écoute à la fin tu laisses kooku bu toogee ñu naan am nañu yaakaar ci moom moo la njombe ba tout sauf Ousmane Sonko c'est de l'apparence waxuma ne nag Ousmane Sonko bu toogee moo gën de yàlla rek a xam ku gën yàlla na ko doon bu fekkee moom dafa war a doon président yàlla nekk ki gën bu fekkee gënut yàlla nañu yàlla indil ki gën noonu la noo waxee yàlla na yàlla fal président Sénégal ki gën ci réew mi Sénégal décollé enfin ñu libéré wu mais pour nga libéré wu foog mu am koo xam da nga ko daan sëñ bi li nga daan jël ci man mu la bëri mënatul nekk. Mhm. rien que autoroute à péage bi est-ce que xam nga ne bu may dox ci daw ci autoroute à péage damay sama xol dafay jeex. dama naan non. mais mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en même pas seul. lu metti lañ ñuy def. Mhm. malheureusement nous acceptons tout. nous acceptons